asalaamaaleykum euh, Père bi ñu ngi leen nuyu. leen di fay. Euh, ñu ngi lay la ma war a ñaari mbir légitimité ak obligation légitimité pourquoi parce que euh, ku nekk xam na ne Dieyla ba muy xale ba nga ni daf ma bàyyoo daf ma papam obligation pourquoi parce que aussi ñoo bokk suñu milieu hmm, milieu de la musique donc mu nekk ci koo xamante ni dafa particulière ci man parce que. Euh, Dieyla ba mu démarré ba nëgë ni jusqu'à présent lu muy def euh, dina ma ko wax lu muy dugg dina ma ko wax donc ñuy waxtaan en plus de ça nag aussi voilà mu nekk une artiste qui se marie. mais c'est une très bonne chose une très bonne chose parce que euh, ni jeune ménagère mën a duggee ci biir sey noonu la jeune artiste wala jeune leneen mën a duggee ci biir sëy Et puis, je ne pense pas que mon que jeune, c'est-à-dire il faut relativiser, parce qu'une femme qui a 20 ans n'est plus jeune. Voilà, nous, nous, nous y a 20 ans, fait que nous avons Donc, il ne faut pas... Et puis, ce n'est pas, pas lié à ça. Et d'autant plus que c'est une excellente chose. Pourquoi Parce que qui euh, Moïse, il le sait, il le sait, il le sait, peut-être... Euh, voilà donc dina am un accompagnement profitable. Mm, euh, Ndogu Sène ni ko kii woon moom moo ko takk moo nekk manager. mais c' est une excellente chose c' est une excellente chose comme je le disais et moi je dis que euh, les gens xëy na peut-être am nañu benn frilosité sur les rapport entre le manager et l' artiste mais man si si je n'étais pas dans le milieu là sama jabar war a ànd ak manager am voyager ay. étranger wala di dem ay di ñëw ay 5 heures 6 heures du matin est-ce que man sama sa je je pourrais l'accepter du ñëpp ko mën a accepter donc c'est une bonne chose ni docteur yi marié seen biir ni euh, journalistes yi marié seen biir ni les ouvriers du Marisine bi que les artistes aussi se marient entre eux quoique y' a pas problème. soo soo xoolee milieu showbiz ñu si bëri seen sëy du yàgg dañuy dugg tey suba ñu gën si sëy bi te si sëy bu yàgg sëy yàllaa koy takk mais li koy tas nit ñi la te c' est valable partout du nekk rek ci bi parce que y' a des choses contraires euh, ku mel ni kii ne la am sëy naag ba suul ko hmm? maam lees ak euh, soxnaam Daba Seye bien que jeune la son mari c'est son manager joor Mba Dior Mbaye bien que les jeunes son mari c'est son manager et cetera donc ce n'est pas une vérité exacte en disant que xëy na peut-être euh, célébrité yi seen sëy mën na gaaw a am problème voilà parce que li koy mooy li may wax rek sëy dafa nekk loo xamante ni c'est que les ni ngay duggee ci sëy su fekkente ni euh, feeling wala dafa am condition bu la dugal ci sëy sëy boobu mën na dem ba ci biir lu soo gisatu condition boobu mu am problème mais su fekkente ni yaay de préalable ngeen xamante dund sentiment et cetera mën ngeen a euh, sëy ay ati ateer. ban conseil de moom nga jox yaa conseil bi ma ko jox moom mooy que fa mu nekkoon fa mu nekkoon jusqu'à présent mu nekk fa mu nekk fa ba tey parce que euh, comme je dis rek saay yu nu chaque ñëwee lépp luy préparé di leen ci waxtaan ak man. Et que Yass, c'est quelqu'un qui prend boku de conseils et c'est quelqu'un de très très posé. Donc, euh, fi mu nekkoon mu bañ fa teggi tànkam ñu continuer noonu parce que voilà. ok lay jaajëfal jërëjëf jërëjëf.